fàttaliku barabu xawlata googu dem ba ne gi daal bu ci bëggee génn dafay war gërëm gu baax rek tukki ñoom noonu ñu doon fajee seen njàqare gërëm googu la misaaloon nag ba ne laxaa ñeel na gërëm googu faxisaani ñaari lëpp gërëm gi dafa am ñaari lëpp ukk mi na matal nañ an naxdu yàpp ba fihima ma ci ñaari lupp yooyu gëlëm gi am na ñaari lupp yoo xam ne dafa am yàpp yu bari kannahuma dafa mel ni ñaari lupp yooyu baaba mu ni fi ñaari bunti tabax bi aji yëkkatiku la mu maradin ba da bañ raax mooy buñ mooy buñ raax rek dafa am ñaari lupp yu fees ak yàpp ñaari lupp yi nag mat giñ mat moom la tabax bu kawe ñu rax ko ñu tabax boobu di matee man na ñaar lupp yi rëye wa teyu ak lem gannaaw gannaaw gi dafa lemu mel ni ay xeer lañ ci lem kel xani yi ba mel ni xala bantu xala wala boo kël yi comme xalalamal xulufuhu ak gannaawam wa ajirana tun am na ay baat mooy doq lu zat yoo xam ne taqale nañ ko bi dayin ci yaxu gannaaw mun na dëdin buñ raasale gëlëm googu yaxu gannaaw ga dafa lemo duggalante loolu lay tax mu dëgër ni yaxu gannaaw gi le duggalante nag lay wax ne dafa euh, boo ko xoolee ni euh, faar yi duggalante noonu dafa mel ni xala xoloofoo mooy faar yi rek faar yi niñ duggalante noonu dafa dëng boo xoolee nan xala la am doq goo xam ne ni dafa sës ci yaxu gannaaw ga dégg nga yàq gannaaw nga xam ne yàq yuñ ransere la maanaam dox ga yàq yam sës yàq yu dëgër la yuñ ransere bu ko defee gannaaw gi yàq yi dañoo dugalante faar yi tamit mel ni ay xalaa moo tax mën nga fi woote yu ma xaalin ak lem la moo gannaaw kële xan nii ba mel ni xala xuluufu ay faaram waa jiratun am na ay doq lu sat yoo xam ne sësal nañ ko wala taqal nañ ko bi da yin ci yàqu gannaaw mun a dëgër ñuy ransere kon yàqu gannaaw gi dafa ranseroo dëgër kaana kinaasay daalatin daf mel ni ñaari tuddukaayu dem bukki yëg nu faani haa ñoo ko wër wa atraqi siin lemlemu xala taxta sulbin ma ngi ndigg mu ayyadi la guñ dëgëral dégg nga poqutaanu gëlëm yi lay nirole nii dégg nga poqtaan yi yaatoo moom la niru rek tëddkaayu kéwal ci ron garabu ndem duk ndem bukki garabu déem yooyu xam ne du am meññet dafa mel ne ñaari tëddkaayu gërëm xam nga loolu day yaatu ni ñaari tëddkaayu gërëm di yaatoo ci ron garab gi dégg nga noonu la diggante poqtaan yaato faari la niruleeg lem-lemu xala faari niñ dëngee daf ko niruleeg xala gu dëng nekk nag ci ron ndigg lu dëgër kon poqtaan dafa yaatu la bëgg a wax faari dëng ndigg lam teg lam sës moom faare nekk ndigg lu dëgër moom lay wax ne ka an na kinaasay daalatin dafa mel ñaari néegu mm, tëddukaayu ñaari tëddukaayu kéwal dégg nga kaana kinaasi daal daf mel ni ñaari néegu ndem bukki yekk nu faane xaa ñoo ko wër ñaari tëddukaay kéwal ñaari néeg yooyu ni mu yaatoo noonu la foqtaan yaatoo waa taraqi si yin lem-lemu xala mooy faar yi moom la niroo lem-lemu xala taxta sulbin moo nekk si roon digg mu ayidin buñ dëgëral ba mu waxee roon ndigg rek la nga xam ne faar yi la na mu ndax faar mooy nekk si roon digg ba ma waxee it kaan na kinaasa yi daal daf mel ni ñaari néegu mm, eh, garabu ndim bukki yeeg nu faana ñoo ko ñoo ko wër am na ñoo ko wër lañ xam ne poqtaan la ci na mu ndax ñaari poqtaan lay doon ñaari poqtaan nag bu nekk daf ko niru rek néegu kéwal laa ñeel na googu mir faqaani ñaari conc aftalaani yuñ raw raw gu dëgër ka annama tamurru dafa mel ni dana romb bi salmay daalijin ci ñaari baagu aji wëgg mutashaddidin ku tat wala ku dëgër ñaari conc yi nañ sore ak wet ya ndax conc yi bu soree ak wet ya dafay tekk affaire bi njool na rëy na ñaari conc yi conc yi dañoo soree ak wet ga loolu lay niru léegi nag kuy wëgg ni baag bi di soree wetam yi noonu la ñaari conc yi soree wetu fas wa laxaa na ko mirfaqaan ñaari conc aftilaani yu dëgër wala yu raw raw bu dëgër ka annama tamuru dafa mel ni dafay romb bi salmay daali jin ci ñaari baagi aji wëgg mu tashadidin ko am kattan ñi baag bi soree nag wetu kay wëgg noonu la ñaari conc yi sore wetu gërëm gi kon gërëm gu njool la ka xantarati ruum yi dafa mel ni poog këjug ruum ruum mooy tubaab ak sama gëñ na rab waxaa boromam ne la la tuktun la fan danañ ko wërale hatta tushaada bañ yëkkati ko bi xarmadi ci móol gërëm gi wax ne ni cër yi dugalante yax yi rancé ko dafa mel ni rek pont boo xam ne nii ab tubaab bu dëkk Ruum moo ko defar tubaab boo xam ne dana ko yëkkati ba kawe ni pont boobu di dëgëree daal noonu la cër yi dëgëree noonu la yax yi duggalante parce que pont yi tubaab xam nga dafa ay fer ak bu dëgër ni muy dëgëree noonu la gërëm gi dëgëree. nga mel ni pont bu ab tubaab defar la ni pont bi di dëgëree noonu la gërëm gi dëgëree sahabiyatul usnuni aji xonq la yaxu sikkiñ usnun mooy yaxu sikkiñ mujadatul mujadatul qurqara aji dëgëral lu war a boog luñ dëgëral gannaaw la baidatu waqdir rijli wala waqdir rijli aji soree daw ak tànk la mu waaratul yeddi aji yoxam yoxam loxo la maanaam loxo bi dafay dama ko dikk ndax maanaam tànk yi lañ ma tànk yi moom lañ nam mu si loxo yi day dama ko dikk bu ñu waxee dafa yoxam mooy dafa mën a jug di dama ko dikk gërëm googu la wax ne yaxu sikkiñ ja mooy osnul ga dafa xonq gannaaw ga dafa dëgër mu am loxo yu kii kon euh, euh, jéego yi sore mu am loxo yi tànki kanam yu sawar nga xam ni dafa mel ni lu yoxom umirat raw nañ yeddaxaa ñaari loxom fat la chesrin raw gu dëgër wala bu waxee fadla chijrin raw ak njaxas lam ci namu mooy euh, dégg nga maanaam bu kër bu àll ñuy tëbante am doom doom ji day dëgër boo uj ni xat jàngal nañ la xaa ñeel ko katifaaxa ñaari mbagam fii mu xaalal la def di moom ci luñ ci ci luñ kaweel musaadin buñ yëkkati am na am na bu def musnadin tamit mu ne gërëm googu ñaari loxo yi dañ koo raw raw gu dëgër mooy umiral yadaha fadla shashin raw gu dëgër ñaari mbagg yi xaw a jeng jëm ci wet ya ba mel ni teraas la boo xam ne ni daal lenn li dafa sës ci lenn li noonu la mbagg yi kawe jenn waxun fasu gëlëm guy mammaakoon la du faaqun gëlëm gu gaaw la xandalun gëlëm gu rëy bopp la summa ufrihat topp ñu yëkkati laxaa ñeel ko katifaaha ñaari mbagam fi muhaalan ci gannaaw guñ kaweel musaadin bër bañ yëkkati gëlëm googu dafay jeng dafa dafa sawar jenn waxun mooy jengaakoon la gëlëm gu sawar mooy dem ba si kanam muy jéng ko bañ bu ñëw ci diggu yoon wi dafay jéng ndax sawar ga gëlëm gu gaaw la bopp ba rëy lool ñaari mbagg ya nekk ca kaw mooy ofnaat yëkkati na ñaari mbagg yoo nekk ca kaw gannaaw guñ gu yëkkati ko lii lépp lu mu wax rek mooy gëlëm gu dëgër gu baax moom laay war dem laxasi كان علوب النصع دا فمن جيختو بومغا نيديكو واخ نخرا في دعياتها تي اي ويخ ويخم مواردو اي يون لا من خلفا بو نيك تي گناو دجو اجرتخ في الزهر قرقدي تي گناو دجو دغت ولا من خلفا تي با من خلقاء تي برب من خلقاء تي برب اجرتخ في زهر قرقدي تيغنا وكدوج ودغر مني فبومي دي في تاك بومي فوف دافو موجي ويخ تال تي غيرم كو لغي في تاك بوم غي نيو ويخه موم لاي نيرو ليك يونو و نيك يونو ورا تخ نيك سي كاو دوج دغر نيني دي فا جار فاني جار نيمي امي اي جيخيت يو ويخ نون لا fa buum fi ñuy takk buum yi eh, ca gëlëm ga amee ay jeexit yu weex talaaqaa dajee na ñoom jeexit yooyu waa yaa léeg-léegi tabiinu ñu tàqali ko kaan na banaay dafa mel ni ay daax daax mooy nga jël beneen malaan ñëwee ko ab malaan ñëwee ko yëre bu xotteel xurun yu weex fi xamisin dañoo nekk ci simis muqaddadin yuñ daggati gëlëm gi buum yi ñu koy takk mu def jeexit ci yaramam léegi-léegi dangay gis jeexit yoo xam ne dañoo sësaloo léeg-léeg gis jeexit yoo xam ni dañoo tàqali ko na muy weexee nag dafa mel ni yére bu dégg nga simis bu xotteeku ñu jël tisi yu weex daaxe ko maanaam ñëwee ko kon gëlëm gi dañ ko yàgg takk ba buum gi def ay jeexit yu weex ci yaramam mu di ko niruleeg yoon wu nekk ci gannaaw doj léeg mu ne ko niruleeg daax guñ daax simis bu xotteeku wa atlan gëlëm gu gudd doq la nahaadun buuraakoon la isa saadat isa saadat nem yëkkati na bii ci dégg nga doq googu ka sukkaani buus yi dafa mel ni genn gaalu ka jug buus yi musili ba dem bi daj la te ci dexu daj la gëlëm gi guddi gi dafa gudd mu mu mën a buur buur mooy jug ak doole di dem bu yëkkatee dox gi dox gi dafay niroo gaal ak geen gaal gaal ak gu ñuy askane ci buus yi buy dem ci doxe daj la genn gaal googu ni muy mel bu yëkkatee dox gi mu gërëm gi noonu lay mel wa jum am na kaang ak bopp mislu alaati bu mel ni doj wu dëgër kaanama waxaa dafa mel ni dajaloo na almultaqa dajeekaay bi minha ci moom ilaa xarfin jëm ci ab pusa muy la ba ilaa xarfin mibra di jëm ci cet pusa gëlëm gi dafa am kaan ak bopp bu dëgër mel ni daj wu dëgër woowu moom la tax ne mislu alaati comme doj wu dëgër kaa nga kaanam bi nag sës gin yax ba mu sës dajaloo gin dajaloo sës ci ab yax yax boobu la neroo rek cet puso wala ak ràbb ci ñëw ak ci dëgër ni ràbb gi dëgëree ñëw kaanam bopp bi yax ba mu sës noonu la dëgëree noonu la ñëwee kon dafa am kaanam bopp bu dëgër mel ni ab xeer waaye samp ci kaw yax boo xam ne euh, dafa ñaw lool ba mel ni pusa waxat din dafa mel ni am dafa am lex moom gëlëm gi xertaasin bu mel ni ab këyit ka xertaasin shaam bu mel ni këyitu ko jug shaam am na tuñ te sibtil yamaan yi bu mel ni doj euh, derab ko jug yamaan xidduhu deram ba lam yu feesaguñ ko gërëm googu lex ba moom lay niru leeg këyit gu jugee saam ci weexaay ni këyit googu weexee noonu la lex ba weexee tuñ ya nag mu di ko niru leeg derab ka jug yamaan der buñ askanee yamaan ci nooy dégg nga ak dagg giñ dagg tuñ wa nim jubee ñooñu seen der yi dañ ko daan dagg dagg bu jub dégg der boo xam ne dindeeguñ karaw ga noonu la ko niru rek maanaam dafa wone tuñ bi dafa nooy am karaw buñ ko defee ñaas ñaas ku jub lay waaye naa ni am na ñaari bët kalmaa wi ya tey nii yu mel ni ñaari seetu istakan nataa nëbbu nañ bi kafay xijaajay saxratin si xuntuwaa moom ñaari yaxu doj la xalti mawridi gu xóot ak naanuwaay ñaari bët yi moom gëlëm gi dafa leer nañ ñi mel ni seetu ni seetu di melaxee ak ni leeree ñoom ñaari bët yi mel ñaari bët yooyu nag ña nga nëbbatu ci biit xunt xam nga fi bët bi nekk ci biir la xur lay nekk bët ci ab xur lay nekk fu xóot moom la ñu la kunt léegi nag yax bi nga xam ne moo nekk ci kaw bët ba fay xéene di sax yax boobu mooy xijaaj ñaari yax boobu nag ñaari yax yooyu daf ko niróo léegi ab doj maanaam dafa bëgg wax ne xam ñaari bët yu mel xati leer naññi ni ki seetu fa yi sax nag moom la niróo léegi xur dégg nga xur woowu nag la ko wër mooy ñaari yax yi nekk ci kaw bët ba moom la niróo léegi doj bu dëgër waaw قلت موردي ويقول ما دافو قوت نان واي مانام بدي فا نيك دافو قوت بدي دافو دوبي سي بير دايغ ام اي يخ يو خامي دافو ملني كاو قور ما تخ يخي سا دافو كون لو قور ني نياري قورو يخ يو يو خامي اي دوج لاني يخي دافو ملني كاو قور دغر با ملني دوج فا بدي نيك مو ملني لو قور مو نيو دافو قوتي كلام نياري بدي قوت دغر لول leer di mel xati mel ni seetu taxuraani way dañ way sànniwaakoon lañ awaaral xasaa patti laas awaar ak xasaa benn la mooy laas rek maanaam ñaari bët yi dañuy sanni laas yi di ko génne fataraahuma danga gis ñaari bët yooyu kama ku xoola tey mazuratin ñaari bët ñaari bët yuñ tus ngelu wala boo kama ku xoola comme ñaari bët yuñ tus ngel mas'uuratin gërëm guñ eh, kii kon jàll guñ tiital ummi farxadi ka yaay ka yaay doom ñaari bët yi dañuy sànni laa ci laa ci dal di génn ni ñaari bët yi rafetee dafay mel ni ñaari bëti kiwal guñ tiital mu ami doom nu ñu xullee bët yi nag di xool doomam yi di ragal doom yi de ni bët yi di rafetee noonu la ñaari bët yi gërëm yooyu rafete kam moo ko xoolatee mosolatin comme ñaari bët yuñ tus ngelu gërëm guñ tiital ummi farxat yi ko yaay dog wasaari xataa sami tawaju si ñaari way dëggu dégg ak yëg li soraañeel la gi maanaam buy dox guddi lu yëngatu rek mu dégg ko dafa yëg dañu bët nopp yi dañoo neex li xaj ci xafiyin ñeel yëngatu gu oyof aw li sawtin wala kàddu mu naddadi gu njëkkati moo xam da ngaa wax ci kaw wala nga wax euh, nànk gi dana dégg sa kàddu kon gëlëm gu neex nopp la mu allala taani ñaari mm, dégg nga nopp yu ñawal taarifu da xam al itqa gore fii ma si ñoom ñaar ka saamiatay saatin comme ñaari noppi gàtt bi xawmala yu nekk ci xawmal mufradin buñ wéetal dégg nga mufradin da koo def góor parce que wax si yoon la ci namu rek waaye chaat moom jigéen la ñaari nopp yi dafa ñaw dégg nga nga xam ne boo xoolee ñaari nopp yi xam ne gërëm gu baax la ñaari nopp yi mel ni ñaari ndo nopp yi kéwal euh, njaaxal la gu góor gu nekk ci xawmal wéet lool ni muy yëkkatee nopp yi ndax tiitaange noonu la ñaari noppi gërëm yi mel xam nga caatu dañ koo jigéenal waaye moom maanaa bi la topp moo tax mu defal naatu bi góor maanaa bi sawru la sawrul wax ci jaaxal gu wét te bu noppi ni noppi yi noonu noppi gërëm yi mel wa ar waxu gërëm guy tiitaakoon la xam nga bu fekkee da ngaa yeewu lu yëngatu da nga koy yëg loolu la bëgg a wax na baadum ku bëri lu muy yëngatu xaddu gëlëm gi aji xoyof mu lam la mu mu lam la lamun kuñ dajale ak bind la ka mer daati saxra saxrin daf mel ni këlkatib doj min safihin ci doj wi aji yaatu musammadi bala bañ dëgëral gëlëm googu lu yëngatu mu yëg ko moo tax lu bëri lu muy yëngatu la gëlëm la koo xam ni ku oyof la mën a daw lool mbind ma dajaloo dëgër lool boo xoolee gëlëm gi daal dafa mel ni doj wu yaatu rek ab calcul ab calcul maanaam ab doj daanoo fa doj bu yaatu bu dëgër ab doj fàqee fa moom it dëgër lool noonu la gëlëm gi mel dafa mel doj bu dëgër woowu dégg wëñ siita bu la neexee saama mu tolloog waasital kuur yi digg teg bara soxaa boppam bi bu yëkkatee boppam bi dafay tolloog digg teg teg nekk ci gannaawam wa tam fee bi dab ay ci ñaari pëdam ya na jaal xafay dëddi comme gaaw ak bànjool yi boo bëggee daal gënam gi yëkkati boobu ba tolloog tig digg teg ba ngir sawar gi mu sawar bu la neexee mu daw lool mel ni dafay feeg ñaari ñaari pëdëg ya gaaw lool ba mel ni bànj bànjool yi wen siita bu la neexee lam xiil doo ko caral wen siita bu la neexee arxalat mm, mm, wen lam tur du cal wen siita bu la neexee arxalat mu cal maxaafata mal wiin ngir ragal lañ lem meneen xiddi ca der ba moxsadi buñ xereñ ak raw bu la neexee mu daw daw gi yem dégg nga bu la neexee mu mu caab mu jàpp daw bu baax moo bëgg mu dawee rek noonu lay dawee ndax ginnaaw gi dafa ragal yar dafa ragal yar bi nga xam ni nii yaram der la ñu lem ko raw ko ba mu rawaasoo moom lay ragal moo tax moom du xaar sax nga di ko dóor xam nga bu ñemee yar mooy bu ñu yàgg dóor waaye bi ñemoo deer wa aalamun kuñ màndargaal la maanaam kuñ xocc tuñu kaw ba la loolu mooy màndarga dégg nga maxruutun luñ xotti la mais an fi ci bakkan ba maari nun sugg sugg bakkan ba mooy la nooy ci bakkan ba loolu dañ koo xotti tuñu kaw ba dañ koo xotti sugg sugg bakkan ba dañ koo xotti atiixun gërëm gu baax la mooy gërëm gu gore ma taatar jum saa yu xoolee alaardu suuf si rek tës dëgg mu yokk ak daw ndax xam ne li des si yoon yu bëri na am na gërëm yoo xam ne buñ jaaree suuf dañuy xam Mm, suuf si mm, yoon wi sori naam soriwul dañ koy xam ci suuf si mun na saa yu sëggee xool suuf rek gën a gaaw ala misliha ci gërëm gu mel noonu am di laay wooyee isa xaala bu waxee saaxibi sama xandoor ne alaa yellantikoon alaa yëgal laytani yellantikoon man af di ka ma jot la min haa ci moom waafta di tama jotu gërëm gu mel nii moom laay war dog xàll yi ci jamono boo xam ni sama àndoor bi mu ngi yaakaar ne man xale bi ma si danaa dee mu di ma jotee boppam ne yellanti kon mu ñëw nekk sa place yow nga mucc wa jaashat mu yëngatu ilay jëm si mu annaf su bakkan bi xaw fan ngir ragal wa xaaluhu njortoom mooy musaaban danañ ko musibal wala am saa dila damay dox ala gayri marsadi ci yoon woo xam ni foog lu wuñ ko maanaam kenn xaaru ma fa bëgg ma alak sama àndoor bi moo xoolee gis ma tegu ci yoon bi xolam dafay yëngatu ndax dafa yaakaar ni man danaa dee moom ñu musibaal ko di la yoon mu ma jaar kenn xaaru fa ngir bëgg maa lor isal xaw mu nem nañ wax nañ man fatan kan mooy sang xeltu njort naa am ne man oniitu man lañ jublu falam ma walam ëtta ball di doonu ma ku duul ku gàtt hmm, ko xam gaaw a yi bu ñu waxee ne kan mooy sang mu ah, man damay yaakaar ne man lañ wax moo tax man du ma tayal toujours damay góorgóorlu ci mbir yi te it ma duur mooy yéexuma ci li may def damay gaaw def in uriidu al-islaah ma stata'tu wa ma tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi